su fekkee nag moom góor gi daa yemoon ñoom ñu sëtaat loolu mooy kaana zalika baynahu bayna axawaatihi wa bayna axawaatihi mooy bu fekkee yooyu moo daraja nga xam ñoom ñëpp ay sëtaat lañu bu fekkee nag moom loolu féete suuf nga xam ne ñoom sëtaat lañ ñoom jigéen ña moom muy sëtaataat loolu mooy lim ne aw man fawqahu min xammaatihi kon ñoom dañu nekk ay bàjjanam moo tax waaw koy daal moom moom sëtaat mbaa sëtaataat bi dina mën a ànd ak sëtaat yooyu mbaa sëtaataat yooyu ñooy moom ñu jël la nga xam ne moo des seddoo ko góor ñaar jigéen benn la des na bul fàtte ne ak suus ak ceer lay doon ndax bu fàtte ne doom bu jigéen moo fa nekkoon ak ay sëti jigéen yoo xam ne ñoo gën a jege doom bu jigéen jël genn wàll boo defoon juróom benn tegg la ñett mooy genn wàll sët bu jigéen bu dee benn bu ëppee benn jël sulus muy benn ñeent dem na bu ñeent demee mooy sulusaani ñaar moo des na mooy sulus loolu nag moo des walaay doxalu du dugg nag fii taalika ci loolee man ka nga xam ne daxala duggoon na fi sulusay ni ñaari sulus ña min banaatu ibni ci doomu jigéen doom bu góor wa daa wax ne ñi nga xam ne ñoom sëtaat lañu xam nga ñu ëppale wàll ndax ñoom sulus lañ yor di ko bëgg a séddoo ak góor gi àndal te xam nga sët ya kese moom sulus dong lañ yoroon bu defee ne ñu gën a jege jëlum sulus ba daañu mën a bokk ci waat ci sulus boobu le seetlu loolu dalay wax ne la sëti jigéen yi nga xam ñoo gën a jege te ànd nag doom bu jigéen bi daal doon ak sulus ba nga ko booleeg misif jigéen ja bu doom bu jigéen bi mu nekkoon sulusaani wala mooy man daxala fi sulusay ni waaw ndax nga xam ne dama nekk noonu sët dong daal tegg benn juróom benn ña doom bu jigéen tegg ñett boobu kon sulusaani baa ngoog ku bokkoon ci sët yu jege ba doon ci sulus ba doo mën a bokk ci waat ci sëtaat yi la ñuy doon nga xam ne sulus la wa miraasul uxti dana mbokkum jigéen ak shaqiiqati muy ab xarit ak nisf mooy genn wàll walis na tey ni ñaar fa saani ba mu topp lu ko ëpp ak sulusaani muy ñaari sulus boo xasee xam nag doom bu jigéen digg na muy def ak sët yi jigéen ya am nañ daan doon ne say boo xam ne mbokkum jigéen ndey ak baay ak mbokku jigéen ci wàllu baay ñoo xamul ne ci wet li mu la waxagul fii mooy bu fekkee daa faatu bàyyi ku jigéen ku mbokkal ndey ak baay waaye kenn dong la genn wàll lay am. moom bu mu bàyyee benn doom bu jigéen diggu ñëwee moom mu am genn wàll kii genn wàll lay am ba tey bu bàyyee lu mat ñaari mbokk jigéen ñu bokkoon ndey ak baay mbaa ñu ëpp ko waaye góor waxu ca kon dañuy jël sulusaani te da nga ne woon doom bu jigéen digg itam bu fekkee dañoo limu dañ jël sulusaani ko góor waxu ca xam nga li xam nga li ñoo ko bokk fa in kaanu dem nekk nañu ifratan di ay bokk yu góor wa axawaatin ak ay bokk yu jigéen chaqaay xaw di ay xarit aw li ajin wala ñeel wàllu baay fal maalu kon alal ja baynahum nekk na seen diggante li zakari ñeel na góor ga mis lu xaas jil unsa yéeni kenn cërib ñaari jigéen xam loo moo xam ñëw nañu aw kat aw katuroo wala ñu bari daa wax ne bu fekkee ne nag mbokk ya dañoo féete wàllu ndey ak bàyyi ñoom ñëpp te jaxasoo ñeeri góor ñeeri jigéen kon day mel ni rek boo fekkoon ay doom yoo xam ne yee jigéen la yee góor lañ nañu séddoo góor ñaari jigéen benn rek noonu la mbokk yee def jàpp ne kon bu fekkee kooku daa faatu bàyyi ay mbokk yoo xam ne ñoo leen di ay góor ñoo di ay jigéen waaye ñoo yem ci moom daraja ñoom ñëpp dañoo bokk moom ndey ak baay kon buñ fa nekkee ñoom dong da ngay jékki-jékki sedd leen la fa nekk lépp góor ñaar jigéen benn buñ fa nekkee borom cër nga bàyyi ba cër yi génn la des nga sedd leen ko góor ñaar jigéen benn ba tey bu fekkoon ne dañoo bokk ak moom baay dong it noonu la ñu wàllu ndey moom moo xaw a yof waaye jàppal ne wàllu ndey baay bu amut wàllu baay moo koy fekk moo koy wecci fi mu toll nii ku faatu amul ku jigéen ku mbokkal ndey ak baay te mbokkal baay moo koy wecci bu fekkee bàyyiwul ak lim ñee di góor ñee di jigéen ñu mbokkal ndey ak bàyyi waaye bàyyiwul ak lim ñu mbokkal bàyyi dong ñee di góor ñee di jigéen ba tey ñoo wecce dañu daal taxaw rek séddoo góor ñaar jigéen benn moo xam dañoo néew moo xam dañoo bari loolu mooy moo xam mbokk yu góor yi dañoo bari yu jigéen yu néew mbaa yu jigéen yu bari yu góor yu néew lépp ñoo ci yemoo moom yoo xasee jaxasoo rek dañuy séddoo góor ñaar jigéen benn wal axawaatu mbokk yu jigéen ya maxal banaati ànd ak doomu jigéen digg ya kal xasabat ñu ngi mel ni way asabaal la xun na ñeel leen yaris na danañu doon maa la nga xam ne fabala des na xan xun na ci seen gannaaw wala yurba waaye duufu dogal la xun na ñeel leen ñoom mbokk yu jigéen yi maa xun na ànd ak doomu jigéen digg loolu sew-sew la ci miraas bu mat a jàpp ndax dañoo wax ne menn mbokk mu jigéen moo xam ne moo ki faatu ñoo bokk ndey ak baay ndegam kenn la genn wàll la war a am suñu matee ñaar mbaa ñu ëpp ko waaye góor àndu ca ñu am sulusaani ñaari ceer ba tey it xam nga ne mbokk mu jigéenum ndeeg bàyyi su amul mbokk mu jigéen ci wàllu bàyyi moo koy weccee bu dee menn ma mu donn genn wàll bu dee ñaar mbaalu kopp te ànduñoo góor ñu donn ñaari sulus mu lay xamal ne la su doom bu jigéen xasee am nag moom mbaa sët bu jigéen moo xam doom bu jigéen ba day kenn mbaa daa limu moo xam sët bu jigéen ba day kenn am dafa limu su boobaa mbokk yu jigéen yooyu féete ca ndey ak bàyyi mbaa ci wàllu bàyyi doo leen waxalati benn cër da ngay bàyyi rek ba doom yu jigéen ya jël la ñuy jël mbaa sët yu jigéen ya jël seen wàll ba noppi la des nag moom la mbokk yu jigéen ya di jël mu néewoo mu bari man nga koo misaale bu nit génnoon àdduna bàyyi doomam bu jigéenam muy kenn mu bàyyi mbokk mu jigéenum ndey ak bàyyi mbaa mbokk mu jigéenum wàllu bàyyi muy kenn su boobaa doom bu jigéenam ak mbokk mu jigéenam moomee ñoo yemoo képp wàll waaye kat daa tombe rek yem ca ndax dañuy jàpp ne boo defee alal ja ñaari genn wàll muy ñaari xaaj doom bu jigéen ba moom day jël genn wàll ga muy wàllam te yoon moo ko ko jox mbokk mu jigéen moomee nag féete ca ndey ak baay mbaa ci wàllu baay nag jël ba ca des ci kaw moo fa des rek kon la fa des daa doon genn wàll waaye bu ko yéesoo nit moom lay teggi mën nga koo misaale su fekkoon ne doomi jigéen ya mat nañu ñaar mbaa ñu ëpp ko ba jël sulusaani muy ñaari ceer su boobaa mbokk mu jigéen ndey ak baay wala moom baay ma fa nekk la fa des muy benn ceer moom rek lay jël kon seetlu nga loolu takk-takk la bu mat a jàpp ci miraas wala miraas deetub dono li uxooti ñeel bokk yu góor ya wala axawaati ak bokk yu jigéen ya maxal abi ànd ak baay wala maxal wala du caagen ànd ak doom ak dëkkal ju góor aw maxa wala di wala di wala ànd ak doomi doom ba tey ci góor ko tax di wax say boo teel jàpp takk-takk boobu ci miraas bu fekkee ne bàyyi bu jur ki faatu nekk na fi mbokk yépp daan nañ amuñ men men mbokk mi doon bu doom bu góor xasee am jàppal ne mbokk yépp daan nañ amuñ men men mbokk mi doon bu sët bu góor xasee am jàppal ne mbokk yépp yépp daan nañ waaye nag doom ju jigéen ak sët bu jigéen ak maam ju góor duñu daaneel mbokkum ndey ak baay ak mbokk ci wàllu baay tey ku faatu woon bàyyi doom bu jigéen wala ay doom yu jigéen mbaa sët bu jigéen wala ay sët yu jigéen bu fa ay mbokk yu jigéen nekkee bokk néew bi ndey ak bàyyi moom yu góor yee ñooye moo mbaa ay mbokk nekk fa bokk ak ki faatu bàyyi bi ay góor ak ki jigéen ñooye moo bu desee rek dañuy miraas rek génn cër yi la des rek ñoom ñooñee nga xam ne ñoo di mbokk ya ci wàllu ndey ak bàyyi wala ci wàllu bàyyi ñoo koy féetewoo bu desul nag ñu xam desut waaye ci misaal bu fekkoon ne kooka daa faatu bàyyi benn doom bu jigéen daal di bàyyi ay mbokk yu jigéen yu mbokkal ndey ak bàyyi mën naa doon kenn mën naa doon mbooloo góor mën na caa rax mën na caa bañ a rax doom bu jigéen bu dee kenn genn wàll lay am la des nag ñu bokk ne ba ndey ak bàyyi daal di koy fab bu fekkoon itam nekkuñu fa ña bokk ak moom bàyyi. ñooy fab la fa des gannaaw bu doom bu jigéen ba mbaa sët bu jigéen ba fabee wàllam ba noppi maamu góor nag moom bu fi nekkee mbokk yooyu bokk néew bi ndey ak bàyyi mbaa bàyyi daanaka ñooy xaw a yemoo daraja moo tax sax dañuy sàkk bunt boo xam ne dañ fay ràññeel nañu jëflante moom maamu góor ak bokk yooyu bokk néew ba ndey ak bàyyi wala bàyyi li mat takk foofu daal mooy mbokk yi nga xam ne ndey dong lañ bokk ak ki faatu ñoom ñoo yomba daaneel nga xam ne bu doom bu jigéen xasee am képp ku bokk néew ba ndey dong dal nay daanu bu sët bu jigéen xasee am ku bokk néew ba ndey dong dal nay daanu su maam ju góor xasee am ku bokk néew ba ndey dong dal nay daanu nga xam ne kon doom bu jigéen sët bu jigéen maam ju góor mën nañoo daaneel mooy mën nañoo tee doon mbokk ci wàllu ndey dong te loolaay am bu wér a wér te nag duñ tee doon mbokkum ndey ak baay ak mbokk ci wàllu baay nga jàpp boobu teqale wal ixwatu mbokk yi li abi ñeel wàllu bàyyi fii xadami chaqaax yi ñàkk ay xarit ka chaqaax yi ñu mën ay xarit zukoorihim seen i góor wa inaasim ak seen i jigéen loolu doon nañ ko wax léegi maanaam mbokk ci wàllu bàyyi bu fekkee amut moom ñu faatu ñu bokkoon ndey ak bàyyi ñu bokkoon moom ci wàllu bàyyi ñooy taxaw taxawaay ñu bokkoon moom ndey ak bàyyi bu dee góor ak jigéen wala muy góor kese mbaa jigéen kese lépp ñoo bokk àtte bi fa in kaanat ndem am na waxtu mbokk mu jigéen choqi xët mu di ab xarit waxtu ak mbokk mu jigéen aw axawaat wala ay mbokk jigéen li aju ñeel wàllu bàyyi fa nisf kon genn wàll ga li choqi xët ñeel na xarit ba wala man ñeel na ka nga xam ne bàq ya des na lil axawaat ci mbokk jigéen ya li aju ñeel wàllu bàyyi ak sudus sudus la nga xam ne ci doom bu jigéen digg bu koy def ak sët yu jigéen ya mooy ñëwaat fii bu fekkee ki faat daa bàyyi mbokk mu jigéen moo xam daa bokk ak moom ndey ak bàyyi ak mbokk mu jigéen moo xam ne bàyyi dong la bokk ak moom mën naa nekk kenn mën naa ëpp kenn kon kan bokk ak ndey ak bàyyi mooy am genn wàll ga ka bokk ak moom bàyyi dong te jigéen mbaa mu ëpp kenn te ñu jigéen jël sudus ak juróom-benneel te wala kaanataa doon te nekkoon nañu it cheikh yi xëte di ñaari xarit lam yokkun kon du nekk lil axawaati ñeen mbokk jigéen yi di abi ñëw wàllu bàyyi cheyun dara illa an yokkul dara bu dafa nekk maa xona ànd ak ñoom dëkkarum góor te yàqu solo ba ñu jël maa la nga xam ne baqee des na li dëkkari ñel na góor ga mislu xasil unsa yi ni kenn cërub ñaari jigéen bu fekkoon ne ñu bokk moom ndeeg bàyyi tey jigéen dañu xas mat ñaar mbaa ñu ëpp ko ba xas jël sulu saa ni ñaari ceer kon ñu bokk moom bàyyi dong buñ dee jigéen kese góor raxu ca duñ am dara dara dara bu ñu àndi góor jël si desoo si bokk góor ñaar jigéen benn te kat la nga waxoon ca doom jigéen digg bañ matee ñaar ba jël sulu saa na nga ne woon sa di jigéen buñ dee jigéen kese góor raxu ca duñ am dara buñ àndi góor la jël si la des séddoo góor ñaar jigéen benn wa miraasul uxti donub mbokk mu jigéen lil ummi ñel wàllu ndey wala axi ak mbokk mu góor lil ummi ñel wàllu ndey sawa an mbir mu mu wey yemoo ak sudusu mooy sudus likkuli waaxi di ñel kenn ku ne nee na mbokk ci wàllu yaay moom bu xasee nekk menn rek muy góor ak mu jigéen a ci yemoo ab juróom benn lay am maanaam boo defee juróom benn xaaj rek mu am ca benn wa in katuroo ndeem bari nañu fa tulus kon tulus ba bay na xum nekk na seen diggante ak dakaru góor ga wala um sa ak jigéen ja sawaal mooy yemoo lañu fii ca moom suñu ëppee benn rek mat ñaar mbaa ñett ñoo mbokk ci wàllu yaay ñu leen di boole sulus sulus mooy ab ceer ko defee ñu bokk ko séddoo ko yemoo ci képp foofu na nga bañ cee juum dangaa miinoon bu defee ay góor ki jigéen te yemoo daraja góor ña ñaar ci la jigéen ña waaye jàppal ne fii mu mbokk ci wàllu yaay bu ñu def góor ñaar jigéen benn ñoom ñëpp ñoo ci yemoo ci sulus ba de ñaar ak bu ko ëppee mel noonu daal ñoo ci yemoo képp waaye xajubuhum dana leen yiir anil miraasi walis doon alwaladu doom wa banuhu ak ay doomam bu ne woon nag alwaladu wa waladuhu mooy gën a gàtt wal abu ak baay wal jaddu ak maamu góor lil abi ñel wàllu baay maanaam mbokk ci wàllu yaay moom dañoo gaaw a daanu gannaaw boo tënkee ne bu fi bàyyi nekkee mbokk yëpp daanu bu fi doom ji góor nekkee mbokk yëpp daanu bu fi sët bu góor nekkee mbokk yëpp daanu da nga cay dolli ne bu doom xasee am doonte jigéen la dana daaneel mbokk ci wàllu yaay bu sët amee doonte jigéen la dana daaneel mbokk ci wàllu yaay su maam ji góor amee ba tey daaneel mbokk ci wàllu yaay nga xam ne kon am na ñett ñoo xam ne mën nañoo daaneel mbokk ci wàllu yaay te mën nañoo daaneel mbokk yi ci des ñett ñooyu nag mooy doom bu jigéen ak sët bu jigéen ak maam ji góor wal axu mbokk mu góor yaris dana doon almaala alal ja itam farada ne wéet na kaana moo xam nekk na choq yi xam ci ab xarit aw li abin wala ñeen wàllu baay nee na mbokk mu góor moom ñi asabal la bokk amul benn cër boo koy waxal bu fi nekkee moom dong moo xam daa bokk néew bi ndeeg baay bu fa nekkul nag ka bokk ak moom baay tey góor taxaw ku mu ci mën doon rek moom la fa nekk lépp moo koy moom ndegam nekku faak kenn ko war a doon ku may moom wa chaqiqu ab xarit yaxju bu dana yiir al axa mbokk mu góor lil abi ñel wàllu baay su fekkee mbokk mu góor ci wàllu ndey ak baay am na fa kon ku bokk ak moom baay kese dal nay daanu ndax ka gën a jege bu mënee jeexal alal moom ka ko gën a suufe day daanu kon nag mbokk mu góorum ndey ak baay bu fi amee rek ku bokk ak moom baay kese doonte day góor it du tee mu daanu ba in kaana dem nekk na axu mbokk mu góor waxtul ak mbokk mu jigéen faak saru topp lu ko ëpp chaqaay xadi ay xarit aw li abin wala ñeel wàllu baay bu ñu xarit rek mooy bokk moom ndey ak baay mel ni aw xarit ci moom di jubluwuñ ñu xaritoo fal maalikun alal ja baynahum nekk na seen diggante li dakkari ñel na góor ga mislu xasdil unsayni kem cërub ñaari jigéen su fekkee mbokk ya fa nekk dañu jaxasoo di góor ki jigéen waaye ñoom ñëpp ñoo yemoo dara ji ki faatu ni ki ñoom ñëpp ñu bokk ak moom ndey ak baay wala ñoom ñëpp ñu bokk ak moom baay kon dañuy seddoo góor ñaar jigéen benn nga xam ne góor ga mooy ñaar ci lay jigéen ñaar ba in kaana dem nekk na maxal axi ànd ak mbokkum góor ma du sahmin boromub cër bu di akoon jëkkeef bi ahli sihaamit ñooñ cër ya wakaana te nekk loxo di ko ñeel maa la nga xam ne baqee des na bu fekkee mbokkum góor ma fa nekk te bokkum néew bi ndey ak baay mbaa baay dafay nekk ak borom cër dañu bàyyi cër yi génn ba set la des na mu daal di koy moom waxaan naa ko léegi wa kasaalika naka noonu yàkkul dana nekk maa la nga xam ne baq ya des na lil ixwati ñeel bokk yu góor ya wala axawaati ak bokk yu jigéen ya li dakari ñeel na góor ga mis lu xal bil unsayni kem cërub ñaari jigéen fa in lam yab xam ndeem de sut cheyun dara fala chey di dara laxam di leen ñeel tey waxaan naa ko léegi maanaam mbokk yi bokk néew bi buñ jaxasoo di ay góor ki jigéen waaye ñoo yemoo daraja ci bokk ak moom ndey ak baay mbaa bokk ak moom benn baay kon bu fekkee ne borom bi cër am na fa ngay génn cëree ba noppi la des nag ñoom ñu séddoo ko góor ñaar jigéen benn bu jeexee tàkk nag kon duñ am dara dara mel ne bu fekkoon ne ki faatu dafa bàyyi jëkkër ak mbokk mu jigéen mu bokkal ndey ak baay léegi nag mu des nag ay bokk yu bokk ak moom bàyyi dong tey góor ki jigéen xam nga ne kon su jëkkër jëlee genn wàll mbokk mu jigéen ndey ak baay du mel jël genn wàll alal ji jeex tàkk kon ñu féete ci wàllu baay jaxasoo di góor ki jigéen moo bu doon ay jigéen kese ak bu doon ay góor kese ñooy moo duñ am dara dara ndax kuy xaaru des moom bu desul rek nga ñàkk illa an yàkkoon dara bu dafa nekk nag fii ahli sihaami ñooñ cër ya ixwatun ay mbokk li umul ñel wàllu yaay xad warisoo ñoo xam doon nañu ak sulus a sulus waxat bax yi te des axun mbokkum góor shaqiqun mu di ab xarit aw ixwatun wala ay bokk zukoorun yu góor aw zukoorun wala ay góor wa inaasun ak i jigéen shaqaa'iq yu di ay xarit maa xam ànd ak ñoom fa yu shaarikoona kon danañu bokkaale kulluhum képp ci ñoom al ixwata mbokkee lil ummi ñel wàllu yaay fii sulusim seen sulus ba fa yakkoon te muy nekk baynahum seen diggante bi sawaay ci yemoo wax ya moom al faridatu mooy masalama allati ma nga xam ne tusamma def na ko tudde al mushtarikata masala muy aji bokkaale wala al mushtarakata boo fataa raagi muy masala muñ bokkaale waaye daa mel ne kasara raagi al mushtarikata la ñuy ëpp jàng tey wan foofu masala moo xam ne siiw na ci téere miraas yi maanaam su fekkee bañ teggee cër yi ba mu jeex dafa am ñu bokk moom ndey ak bàyyi doon xaaru des te desul dara waaye nag boo dee xool ña teggi cër yi ba mu jeex da ca am ñoo xam ne ndey dong lañ bokk ak kafaatu nga xam masala moomu daal lañ koy misaale masala moo xam ne ndey am na ca wala maamu jigéen jëkkër itam nekk fa mbokk ci wàllu yaay nekk fa te limu boo weesoo ñooy nag nga teg ca ñu bokk moom ndey ak bàyyi te ay góori kese baa ñu jaxasoo di ay góor ak jigéen kon moomu masala juróom benni cir la war a doon ndax borom suddus bi nga xam ne moo ci am mooy benn muy yaay ji nga tudd wala maam mu jigéen ku mu ci mën doon ab suddus ab juróom benneel lay war a teggi te kon faaw nga def alal ji juróom benni xaaj su koo ko teggee benn muy suddus jëkkër war a am ñett muy genn wàll ndax doom amut sët amut kon ñeent dem na mu des ñaar nag mbokk yi ci wàllu yaay buñ xasee limu ëpp benn rek ab sulus ab ñetteel lañ war a jël te xam nga juróom benn ñaar moo di ab ñetteelam maanaam moo di ab sulusam kon juróom benn yépp jeex na tàkk te am na ñoo xam ne ñoo ki faatu ñoo bokk ndey ak baay nga xam ne ñoom dañoo jaxasoo di ay góori ki jigéen mbaa bokk ñu di ay góori kese waaye daal boo leen seetee moom ñoo ñee bokk ak moom genn ndey ba jël ceeru alal ja muy ñaar ci juróom benn ya ñoom ñoo ñee ak ñoom ñii doon xaaru des ñoo yemoo képp ñoo yemoo képp ci bokk ak ki faatu genn ndey waaye ñoom ñi ñoom dañ cee boole bokk ak ki faatu bàyyi boole ca loolu nag moo leen moo leen doon tax a xaaru des te desul dara lii ba mu njëkkee xew ci jamonoy Omar ibnul Xattaab radiyallahu anhu nii rek la defan daa daal di bàyyi jëkkër teggi ñett ndey ma fa nekk mbaa maamu jigéen ma fa nekk tegg benn muy sudus ña bokk moom jenn ndey te war a am ab ceer daal teggi ñaar muy ab ceer mu daal di bàyyi ña bokk ak moom ndey ak bàyyi ñu ñàkk mu ne leen yéen da ngeen doon xaaru des te desul dara ba mu delloo xewaat nag ba tey ci jamono Omar ñoom ñoo ñee nga xam ne ñoo bokk ak moom ndey ak bàyyi ñoo wax Omar ne ko waaw nun dey ñee nga xam ne ñoo doon ceeru alal ji ak nun ñi ak ki faatu jenn jenn ndey ji noo ko bokk nga xam ne sunu bàyyi bee rek nu bokk ak ki faatu moonu xañ moonu tee am waaw teenoo sànni sunu bàyyi fële bañ koo limaale mel ne aw doj woo sànni ci géej rek wala bokk muy mbaam rek nga xam ne daal ñun ñëpp noo bokk bokk jenn ndey nu bañ a limaale sunu bàyyi bee tan bokk ak ñoom seen sulus bee muy ceer bee rek ndax ndey ji moom jenn jee bàyyi bi rek moom nar a xañ naka ñu wax loola nag Omar seetluwaat ko daldi rafetlu loola wéyal ko ca lañu doxe nag di àttee masala mi noonu saa yoo xam ne am nañu bokk ka faatu ndey ak baay doon xaaru des te desut te am ca ña teggi saami ya ñoo xam ne ndey dong lañu bokk ka faatu teggi ceer ba ñu daal di far boole ñu doon xaaru des bokk ak moom ndey ak baay ak ñooñee teggi woon ceer ba ñu far yemoo rek bokk ceer ba séddoo ko yemoo ca képp nag duñ ko def góor ñaar jigéen benn déedéet dañuy mel ne ñoom ñëpp ndey rek lañ bokk ak kafaatu daal di séddoo ceer boobee yemoo ca képp képp góor du ëppale jigéen. walaw kaana doon te nekkoon na man baqiya ka des ixwatan di ay bokk li abi ñeel wàllu baay lam yu saarikoo duñ bokkaaleeg al ixwata bokkee li ummi ñeel wàllu yaay li xuróoj yi ngi seenu génn an wilaadatu um walis jurum ndey ja nee na nga seetlu ne bu fekkoon yéen xaaru des bàyyi képp lañ bokk ak néew bi kon dañuy ñàkk ndax ñii la leen tax a doon mooy ndey ji ñu bokk ak ñu jël sulus bi rek ndey ji ñu bokk ak bokk yi ci wàllu ndey dong moo tax ñu ñu bool leen ñoom ñu bokk sulus ba waaye bu fekkoon ne ñoom xaaru des dañoo doon ay bokk ci wàllu baay su boobaa dañuy ñàkk ndax ndey ji tax ñu doon ndey ji tax ñu féete ci wàllu yaay di doon bokkuñu ko. waaye in kaana dem nekk na man baq ya ka des. waxtaan di mbokkum jigéen aw axawaatin wala ay mbokk yu jigéen li aboo yi ne ñeel ñaari waajur aw li ibni wala ñeel wàllu baay waxi la kon sompaleef laxu na ñeele bu fekkoon ne nag ñaroon xaaru des te bokk néew bi ndeeg baay dañuy ay jigéen yi kese góor raxu ca su boobaa kon du nekkati masala mustarika ndax kon dañoo tegg saam yi rek saam yi nar a manqué waaye xam nga ne bu dee menn mu ji bu dee menn mbokk mu jigéen ci wàllu ndeeg baay war na am genn wàll bu dee lu ko ëpp war na am war na ñoo am sulusaani te xam nga ne bu fekkee du ndey ak baay itam ñu féete ci wàllu baay bi ndey jigéen kese ba tey kenn ka loolu lay def jël genn wàll dóob kenn ka itam jël sulusaan yi kon ñi mu la wax ni juróom-benn yi nga defoon mu jeex tàkk bu fekkoon ne ka fa desoon day menn mbokk mu jigéen bokk ne bi ndey ak baay da ngay tas saa mi def ko juróom-ñeent ñett ya nga ci dolli ci juróom-benn ya nga jox ko jigéen ji bokk moom ndey ak baay sompoog ya ko waral suñu ëppoon kenn doon ñaar nga somp ñeent dolli ca mu ànd juróom-benn muy fukk maanaam kon la nga defoon juróom-benn saam da nga koy soppi mu fukki saam bu ko defee fukki saam nag léegi ñeent yi nga ci yokk ci ay saam ña bokk moom ndey ak baay tey jigéen ñoo ko moom. loolu nag jàppal ne bu fekkoon ne ka des dafa bokk nag moom baay tey jigéen itam mbaa moobu kenn tey jigéen itam atte bi noonu lay mel. waaye in kaana dem nekk na min xibali ummi ci wàllu yaay axun mbokk mu góor waaye du mu di mel aw waxtu wala mbokkum jigéen dong lam tëkkun kon du nekk mustarikatan di masala mustarika wa kaanata nekk maa baq ya la des il ixwati di ñeel bokk ya in kaanoo ndéem nekk nañu zukóoran di ay góor aw zukóoran wala ñu ay góor wa inaasan ak i jigéen nee na bu fekkoon ne ci wàllu yaay limu wuñu woon nga xam ne bokk ci wàllu yaay kenn képp la muy góor mu jigéen a ci am xam nga ne kon ab sudus lay jël mooy benn lay teggi te bu teggee benn faaw mu des bennaat bu desaatee benn nag ko ñaru xaaru des jël ko du nekkati masala mustarika seetlu ko bi nga ko defee juróom benn bu fekkoon ne ba jëkkër teggee ñett yaay ci misaal teggi benn mbokk ci wàllu yaay kenn képp la muy góor muy jigéen moo xam nga benn lay tey kon muy sudus kon dana des benn ndax juróom rek moo dem des na benn su boobaa kon ña bokk moom ndey ak baay doon xaaru des kon des na benn benn ba la ñuy jël rek séddoo ko wa in kun na ndem nekk nañu inaasan di ay jigéen li aboo yi ni ñeel ñaari waajur aw li abin wala ñeel wàllu baay waxi la kon sompaleef laxu na ñaleen ak baamu gu leer naññ na ñu rek fekkoon ne bi ngi joxe juróom juróom benn yi ba mu jeex te amut day jigéen ju bokk ak moom ndey ak bàyyi mbaa mu ëpp kenn xam ne kon bu dee kenn ki ni sil la bu dee lu ëpp kenn ki sulusaan la su boobaa da ngay somp ni ma waxoon léegi bu dee kenn dong nga somp ñett saa bi soppi ko juróom-ñeent bu dee ñaar mbaalu góob nga somp ñeent muy sulusaan yi da nekk juróom-benn soppi ko fukk wala axul mbokk mu góoril ak ñeel wàllu bàyyi ka shaxis mi ngi mel ni ab xarit fii xadam shaxis ñàkk ab xarit illa fil mustarika na rek ci masala mustarika mbokk mu góor mu bokk ak ki faatu bàyyi dong day wecci ka bokk ak moom ndey ak bàyyi tey góor lu may nag ci masala mustarika mi nga weesu masala mustarika mi nga weesu karam xaaru des bu dee góor gu bokk ak néegu ndey ak bàyyi te gis nga ne jeexoon na dañ koo jël boole kook mbokk yi ci wàllu yaay ñu bokk sulus ba seddoo ko yemoo ca képp te nag bu fekkoon ne kadisoon di xaaru des wàllu baay dong la kon xam nga la tax ñu doon muy ndey bokk ko ñoom su boobaa kenn du ko boole seeg ñoom moo tax mu ne la mbokk mu góor ci wàllu baay mën naa wecci mbokk mu góor ci wàllu ndey ak baay ba mu des ci masalam mustarique moom mënu ko caa wecci mënu faa taxaw taxawaayam woo bul axi doomi mbokk mu góor kat axi mi ngi mel ne mbokk mu góor fii xadamit axi ci ñàkk mbokk mu góor kaana moo xam nekk na chox yi xam di ab xarit awli abin wala ñeel wàllu baay daa wax ne doomi mbokk day taxaw taxawaayu mbokk koo xam ne amul mbokk rek doomi mbokk mooy wecci mbokk dëgg-dëgg mel ne koo xam ne amul mbokk waaye am na doomi mbokk moo xam ne moo baayam ñoo bokkoon ndey ak baay kon kii mooy wecci baayam boobu fi nekkut nga xam ne kon niñ koy tegalee mooy mbokkum góorum ndey ak baay mooy jiitu bu fa nekkul mbokkum góor kese tege ci wàllu baay buñ jàllee nga teg ci seen doom te njëkkee ki nga xam ne seen ñaari baay ñoo bokk ndey ak baay nga njëkki doom doo caa teg ki nga xam ne seen ñaari baay baay lañ bokk kooku doom mooy mujj wala yow suñu doon ibnu axi doom yi bokk mu góor yi umiñe wàllu yaay maanaam koo xam ne yaay doom ngeen bokk moom ci bopp dana doon wax na la sax ci ab cëram waaye doom nag moom du doon ñaari mbokk ci des mooy ki nga bokkal ndey ak baay tamuy góor mbaa ki nga bokkal baay tamuy góor waaw kay koo xel doom di doon waaye ki nga bokkal ndey kese moom doom du doon wal axu mbokk mu góor lil abaway ni ñeen ñaari waajur yax jubu dana yiir al axa mbokk mu góor lil abi ñeen wàllu baay ñi muy bëgg a tegale moom tey def rek ku gën a jege moom te mën a jeexal alal gëla feetu suuf moom daanu ku faatu bàyyi mbokk mu góor mu bokkal ndey ak baay ak mbokk mu góor moo xam ne baay dong la bokk ak moom ka bokk ak moom ndeg bàyyi rek mooy doon lépp lépp ka bokk ak moom bàyyi moom du am dara ndax ñooye moo ci mën a jeex al te kee ma bokk ak moom ndeg bàyyi moo gën a jege wala axu mbokk mu góor itam li abi ñeen wàllu bàyyi aw laa moo gën a yeyoo mi ni bi ni axin ci doomi mbokk cheikh yi mu di ab xarit ba tey xam nga ne mbokk ci wàllu bàyyi ndegam moom mbokk rek la moo gën a jege doomi mbokk kon nag su fekkee daa faatu bàyyi mbokkam ci wàllu bàyyi ak koo xam doom la ci moom ndax moo bàyyam ñoo bokkal ndey ak baay kon mbokkam yi ci boppam mooy doon ki mbokkal baay te dooy mbokk moomee moom daanu boo bu axin doomi mbokk cheikh yi xin mu di ab xarit aw laa moo gën a yeeyoo mi ni bi axin ci doomi mbokk li abin ñen wàllu baay su fekkee dafa faatu bàyyi ñaari doomi mbokkam yoo xam ne menn mbokk ma daa bokk nag moom ndey ak baay menn mbokk ma daa bokk nag moom baay dong ñoom nekkuñu fi waaye seen doom fi nekk kon ki nga xam ne daa bokk na moom ndey ak baay doomam mooy gën a jege ka nga xam ne moom mi faatu baay rek la bokk na moom dégam seen ñaar doom ñee fi nekk rek ki nga xam ne moo gën a jege nga xam ne baay mag ki faatu ñoo bokk ndey ak baay kooku mooy doon lépp wóor mu axin dooy mbokk nag li abi ñeel wàllu baay jax jugu dana yiir xam man bàyyi tax li abaway ni ñeel ñaari waajur bu fekkee ne kooku daa bàyyi doomi mbokk moo xam ne moo baayam ñoo bokkan benn baay am na baayam bu ndaw boo xam ne moo baayam ñoo bokkan ndey ak baay ko it faaw rek mbokk yi day jeex doomi mbokk yi jeex nga door tudd baay bu ndaw moo tax kon doomi mbokk moomee nga xam ne baayam ak néew bi ñoo bokkan benn baay mooy gën a jege mooy doon lépp nga bàyyi nag baay bu ndaw ba nga xam ne baay bu ndaw la ci ki faatu te bokk baayam ndey ak baay kooku du doon doomi mbokk may doon faaw rek mbokk yi day jeex nga door tudd doy mbokk doy mbokk day jeex nga door tudd baay bu ndaw waxam man bàyyi tax li abaway ni ñeel ñaari waajur yax ju bu tën a yiir xam man bàyyi tax li abin ñeel wàllu baay soo demee ci bàyyi ndaw yi ko gën a jege te mën a jeexal alal mooy jël lépp te ko féet suuf daanu mel ne moom daa faatu bàyyi ñaari bàyyi mu ndaw kenn ki daal moom bàyyi bu ndaw la boo xam ne moom bàyyam ñoo bokk ndey ak bàyyi kenn ki nag bàyyi bu ndaw la ci moom boo xam ne moom bàyyam bàyyi dong lañ bokk kon ki nga xam ne moom bàyyam ñoo bokk ndey ak bàyyi kooku ay doon lépp ka ca des moom daanu waxaa mun bàyyi tax li abin ñeel wàllu bàyyi yaxaju ba dana yiir ibana xam mun doomi bàyyi tax li aboo yi ñeel ñaari waajur wala ngaa tudd doomi bàyyi bu ndaw day fekk bàyyi ndaw yëpp jeex kon ku faatu bàyyi bàyyam bu ndaw boo xam ne moom bàyyam ñoo bokkoon bàyyi ak doom yi bàyyam joo xam ne moom seen ñaari bàyyi yi bokk ndeeg bàyyi kon bàyyam bu ndaw bi mooy jiitu kon mooy doon lépp doomi bàyyi ba du am dara waaw bu na xam ne dooyu bàyyi tax li aboo yi ñeel ñaari waajur yaxaj ba dana yiir ibbu na xam ne dooyu bàyyi tax li abin ñeel wàllu bàyyi ndegam bàyyi bu ndaw moom jeex na desatut dooyu bàyyi rek a des te am na ci ku am na ci ku gën a jege moroom ma ndax am na ci koo xam ne bàyyi mag ki faatu ñoo bokkoon ndey ak bàyyi kenn ka nag moom bàyyi mag ki faatu bàyyi képp lañ bokkoon kon ka gën a jege nga xam ne